kini ni sama serigne la jang ke len ni sama serigne la dak jang ñu indi masal yi sama serigne nangam la ci dégg déedéet du deug dégguloo ko di ca werante bay werante lu amul njariñ ndax di werante xorondom eh, eh, eh, wa daja ak suleyman ndax goor la am jigen le ba ca la am jot yam xorondom wa waxante suleyman ndax goor la am jigen le lu cay sayon ah. cee te te te moom kay booba daara yépp ngi bëgg a tas ndax loolu waaw sama sëriñ a raw sa sëriñ déedéet sama sëriñ a raw sa sëriñ rekk ba àddunay bëgg a tukki lu ko jar jàngal ci sa sëriñ jàng ci sëriñu jàmbur boole ñaari xam-xam waaw mooy fulla jëpp mooy fulla jëpp ndax itam Eh, eh, bala nga ne naam ne fa waaw ah. yow kay jeexalagoo koy atti ah yow jeexalagoo koy atti bala nga ne naam ne fa wax dëgg